mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool. looloo tax ñu dem jële ji Jokal daal di koy boole ak Ada Fass l'expérience de Jokal fera face à la jeunesse de Ada Fass bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye lamb ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat sénégalais yi. ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 dinañu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Dieye foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Njaak magicien mbokk yi lamb ji du daw ci benn tele en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziare arène nationale la ñu jógee sànq ci diggante Liss Ndiago ak Tapha Mbeur rek nekkoon ci contre performance noonu lañ ko mën a tuddee ndax dafa jóge ci défaite digganteem ak ak Ada Fass lu ko jiitu digganteem ak ak booy booy booy yëmbal bi la woon Mambala ñaari défaite mu tegale deux défaite nekkoon ci lancé bu doy waar xëy suba tegale ñaari défaite mu metti woon ci moom trop. mu jël ko nga xamante ne ñu bari jàpp nañ ne sax nekkul woon adversaire am waaye seetaan ngeen na nga xamante ne noonu la combat ba mujjee dóor mu daanu la def comme ni ma ko wax rek def na nam daan def dañ koy féliciter di encourager adversaire am bu baax a baax nuyu ko bàyyi ko mu nuyu mbokki internet yëpp bu ko defee ñu waxtaane ko ñii ne nañ 4 kaw la am ñii ne 5 dana ko leeral tey ñu ngi lay nuyu bu baax di la noonu waaw onze billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ba nu yàlla di julli ci yonent bi di gërëm suñ ñaari waajur di santaat waa parcelle bu baax a baax di sant sama xarit yi nga xamante ne ñoom ngeen fekk su ma amee combat du ñu lekk du ñu naan fekk Tapha Mbeur amul ndam du ñu am jàmm Tapha Mbeur su amee defet lu ne la ñuy dégg ñooñu man ñoo tax may sonn tey combat bi nga ko jëlee coow li bëri woon na trop ñu ne ma lu tax nga jógee ci coow dellu ci coow ma leen tey dama nekk mbër moo xam dama objectif sam objectif si làmb mooy egg fi champion yegg te tey loolu noonu li koy maye mooy gëm sa bopp bañ a ragal yoon wi ay da toog defaru ba ci kanam man leen yoon bi njaruta njaruta ragal boo gëmee li ngay def da ngay ñeme entraîné boo naxul sa bopp fu compagne ñëwee da nga war a bëre moo tax ma bëre yàlla may ma ndam ma ciy santaat yàlla bu baax munuma yàlla mooy maye yàlla moo ma may di santaat bu baax di encourager sama adversaire xam nga di ko wax ni làmb noonu la beneen yoon yàlla na ko yàlla dimbali parce que tey lim suñu objectif ñun ñëpp mooy dimbali suñuy waajur si làmb ku ci nekk yàlla na ko yàlla defal nga am si réussite total ba doo rëcc lu taxoon nga dugg si làmb. léegi Galaye Barre di nga ñëw ci combat bi mais dama koy laaj rek contre performance jafe-jafe nga xamante ne jaar nga ci naka ko doon dundee. waaw metti trop tey metti trop parce que tey xam nga amaana tey daan na metti nii du ngeen fi gis gars tey gis nga am nañ ndam ñëpp ñu ngi nii di feetu parce que tey nit ñi li la ñu bëggal làmb tamit nag ku doon may sa bopp jour bu nga war a ñàkk sa doo ñëw. mais tey yàlla mooy maye moom mooy xañe du ñàkk entraînement nax combat yi dama si entraînement yaakaar naa ne entraînement moo si fenn mais yàlla dama jàpp ni moom moo ma war a may rek tey may na ma. waaw parce que góob ma sax ay contre performance waaw góob ma contre performance parce que tey boo xoolee chaque làmb damay gis nit ñi ne may gën a taxaw gën ma ñaanal jeunesse bi bëgg ma man mbëru askan laa mbëru jeunesse bi gars yi dañu maa bëgg di am fu ñu may séntu si làmb. tey gis nañ Tapha Mbeur ñàkk na combat am ñu bëri ñëw gis am Tapha Mbeur tey gamba ji mu ñàkk am na lu mu manqué parce que tey ku ñëw si stade bi gis ne Tapha Mbeur tey mi ngi si làmb ji yëngal génn sama làmb passé dañ ma doon seet sax fa si stade bi am ñu jug nañu mbër ñun xam nañ nan moo la manqué jug xar seen tànk tubay ba tey ñu ñëw yàlla may ñu ndam noonu la rek làmb day màgg làmb boo romb rek am na loo manqué woon beneen bis topp day yokk man noonu laa ko gëmee moo tax ma gëm ni am na leneen sax lu war a ñëw moo tax dama gëm ni yoon bi foog ñu ñeme ko. incha allah mel na ni wax nga nga ne bii passé dafa am ñu la doon wër ci stade bi ñu ne am na loo manqué tey ñu gis la nga bàyyi sa bopp ak nit ñi tafa bi nga ñàkkee donte wax nga ko léegi bariwul ñu fi ñëw mais tey nga ñàkk ñëpp dal ci sa kaw ne am na lu la manqué sa biir xol lan nga mottali tey ba tax mu demee nii. waaw sant yàlla rek parce que tey nit ñi boo ñàkkee mu metti leen ça veut dire am na foo leen toll bëgg nit mooy waral mu ñàkk nga yëg ko tey bu doon bëggoo ko bu ñàkkee doo ko yëg mais tey ñoom si boppam am si ñu si jug xam ne ñun war nañ mën a apporter dara Tapha Mbeur ñu jug def ko xam nga muy ñi nga xam te ne man ñi ma bëgg a dëgg seen doole am na fu mu doon toll man ma namm dara mais tey damay gën a lancer waat appel rek di wax man xale laa te daa am fu ma bëgg yegg si làmb lépp lu ma def dama koy xeeb parce que li ma bëgg moo ëpp di wax ñu gën ma dooleel gën ma jàppale di gërëm sama xarit da baax tey dem nañ ba benn instant non non non non non parce que xam la moo maam day tar des fois tey dem nañ ba nar a cóolu oto bu ñu yóbbu stade te parcelle am na si ñoo xam ne ni ñu ngi fi war a mën a ñëw jàppale Tapha Mbeur Tapha am combat lu waru ko waru waru ko namm daal da baax dafa jógee ñëw jël oto travail am yóbbu ma stade di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fay di gërëm sama gaay nag parce que xam la moo tax làmb dafa metti mm. ñoom Tafa Faye ñoom Moualvin mii nii xam nga ñoom Père Galas saybatu xam nga maas. tabaar di parce que après dañ lay wax looy tàggatoo ñoom ñëpp di nga leen di tuddaat dama dama bëgg nga ñëwoon man sa waaw combat bi parce que tey dama jógee si làmb ñàkkoon ko. mu métti sama gars yi sax am na ñoo xam ñu bëri gëj nañ toog wa toog nii ay jotaay nii suñu gisantee rek benn 10 minutes la ma dawaat dama yeew fajar entraînement bëccëg ma dem salle léegi mooy ma dara. di ma yee fajar di ma yóbbu si dini di ma yóbbu saal bëccëg ngoon écrit bi ñoom sama gars yi contact contact yi métti. billaay damaa entraînement ba gasawaat na ma ne ma waroon noppalu. tey loolu noonu tey dafa feeñ si géew bi bi ma demee sonn ma fa nag damaa sonn entraînement damaa entraînement entraînement ba nu ma mun dara fajar su ma ñëwee dallu lekk ba suur bëccëg ma demaat saal tërën su ma ñëwee ngoon 5 heures ma demaat contact des fois Pambay daf may xool na may maa nga fraîcheur de ban heure nga jógee tërën bëccëg ma ne ko tey de saal maa ngi fa jógee presque deux heures trois heures mënu ma du yoon suba dallul wala boo boo bu heure boobu jotetee bul dem saal bul bul teg sa bopp coono yu métti coach Pambay professionnel di ko ñaanal coach gii sama papa di ma woo tout le temps nooy entraîner nooy def ma ne ko coach lii laay mu ne ma déedéet del wàññi ma ne ko coach daa am ñu may xaar dañ bëgg ma nekk champion man su ma toogee entraîner ma sax day mel ni comme si man maay nekk si lu ma warul moo tax combat bi li ma si daj métti na trop moo tax ma demee si géew bi góob ma woon sax dina métti waat si man waaw parce que tey bu bu méttee fële rek warul mun a métti si géew bi. léegi nan nga bëree. waaw arbitre dafa sifflé man ma xam ni kii tôt ou du taxaw xeex a man ma ñëw ñemeloo ko sama bopp ma ñemeloo ko sama bopp arbitre sifflé ma léew toog moom mu sànni benn coup ma arrière arrière ba saako bi génn mu yëkkati public am ma xamal ko ni kii di la arrière ragalu de moo la gën a ñeme dee. ma ñëwaat taxaw léewtoo ak moom mu sànni ñaari ko mais gëmloo nañ man tôt ou tard booy yëpp sa tànk yi lañ jëm si. ma gën ko jege si waaw gëmloo nañ sa tànk yi lañ jëm wala booy yëpp que nee nga yëpp sa tànk yi lañ booy bu ma siy bëreel du dëggal ba mu xeex man xoolal sama carrière booy yi dëggal seen bopp xeex ak man yëpp. loolu du lu ma wax quoi lu nit ñi teg seen bët la. booy yi dëggal seen bopp xeex ak man yëpp li ñu si jëlee neexul. làmb yi ma ñàkk ñëpp tamit nag dañuy dañuy mel ni lu dëggal seen bopp daw dem ronu. yooru waaw léegi tey ma ñëw mu ñeme ma doxaat sama kaw sànni ñaari ku max sànni muy sànni ñaari coup da génn saako yi lan moo moo tax. boobu yëpp stratégie la parce que nee nañ ma booy bi day ñëw sa kaw. nekkul tegtal dañ ma gëm loo loolu dañ ma mat kii tôt ou sa tànk bi la ñëw ñemeloo ko sa bopp. bu arbitre sifflé même boo jëmee ba jub ko melal ni ku génn saako yi dina yaakaar ne yow mii tey da ñëw pour danga ko ragal. mu arrière génn saako yi ñëwaat li ma ñëwaatee léewtoo ak moom gën ko jege mu sànni ku sànniwaat ku troisième bi daana xaas rek daw ñëw ma tëru ko jàpp ci ngembali mu yaakaar foofu la ma gis téere bi ci bi ma rocc loxo bi téye ci téere boobu rocc sama que Ousa 2 daf ma woo ne man Tapha Mbeur booy booy xeex ñoom gauche daw song ji li ma lay ñaan mooy bul xeexati gauche droite bul corps à corps bàyyil ba jàpp génnee sa loxo dóor am nga force de frappe boo ko defee buntu feeñ te bi ma roccee sama loxo téye ci Euh, euh, téere bi ci loxo bi benn coup laa ko dóor mu wàcc te si géew bi wax na ma lu ne saaga na ma yooyu noonu mais su ma fa nekkoon di dund moom yooyu sax day am lu ma damay ñeme ma ne kii du ma koy def si géew bi la làmb la làmb mun man bañu ma yooyu ñun ñoo leen gën a sakk fop ñoo leen gën a ënd ñun dañu xasaw ñun <laughs> waaw ginnaaw bi loolu weesoo Tapha ñu ne sa combat doon jàll communiqué bi da doon mais combat bi da ngaa def tekk dafa open press dafa dara kenn gisu la par rapport ak Ada Fass paroles yi ñoo jeex ci xel mi wala amatoo loo créé wala la noppi loo tegtalu làmb la. bi ma génnee ko may. dama ne ko birti birti min ketti mbiri man kettungal yow kettungal kër ga ba yëy yàqu bukki yée nga yàqu yow ko yëy di nga gis ku mën yëy bañ koy jaawale ku seeñu ma daaneelal ko jeexul dafa gudd avant combat bi dañ leen sa avant combat dañ asbaab laa ay asbaab maftoox mais boobi maa bugguloon maa ngi moom ñu egg foofu ma jël lépp teg ne parce que parcelle damay génn sax ñu naan ma mbër xamuñu si man ay defet dama ñëw si làmb tegle sept combats sept victoire am si quatre kaw am ñaari defet rek ñëpp mere ma parce que xam la moo dañ ma bëgg dañ ne ma mbër du yoon yow sa niveau si làmb am na fa war teg sa bët mere bi du loo xam dañ ma bañ de dañ maa bëgg bëgguñu gis defet ma ne tey lan laay nekk fii di open press di di mel ni ku kontaan lépp laa teg na maa jël sama décision ne aw ma lu may def li war si laam dinaa jaay bés bi naa def lépp mais yu bëri naa ko tegee ne ba def li ma war a def ba pare wan gars yi man dama bokk si làmb dama am cër si te xale laa. waaw coup bu mujj ko sax moom moo ma doon saaga. loolu yóbbante la gis nañu ko nga yóbbante moom naka de du dégg. yéy bi yéy bi ci Ada Fass xanaa fii la mujjee. non maanaam tey mooy li ma la wax rek gis nga Tapha Mbeur bu amee taxaw dëgg moom li mu gëm mooy góor du yërëm góor ku jekku sa morom rek yéey moom nee na day rocc suma put moom putam bi bi may génn ci stade bi laa ko romb maa ko rocc. <laughs> waaw est-ce que dóorum jàppante su jàppante su amoon yéen ñaar. jàppante bëre parce que sama waa écrit duñ ma bàyyi ma fen Pambay barki alxuraan may contact lu 5 heures ba 7 heures. buñ contacté ba digg mu ne mbëri arrêté leen dafa mbër sampal mbër yëpp laay bëreel damaa contact bay bëgg dee ñoom aada booy bawol ñoo di ma jàppale ñoom ubbali Ibou Ndiaye mbake fay jegaan di ko ñaanal ko combat bi mu jëm samedi moom mbéyge junior yàlla ko yàlla may ndam ay ndaanaan ay Georges Poit ñoom am te ni tur tur lutte simple bi buñ fa demee dañ fa teg dinañ ko jël di ma jàppale contact di ma teg lu métti ne ma yow ñun bu la neexee sa bul xeex jàppal booy bi moo bi ma jàppee gis booy bi di teg sañ-sañ man sama làmb yi ma dóor mu daan yëpp ko de damay ñëw bëgg a jàppante mais des fois daf si am booy yuy teg bandi te affaire bi du yooyu am na ñu la gën a sakk te ñoom duñ dundee noonu man ñoddiwu ma bandi ñun dañ lay gën a undu ba pare gën la kileen ma ñëw jàpp ko muy jéem a dóor ma rocc ko wan ko ni fii la buujoo dama rocc sama loxo benn laa ko rombal ci côté nopp bi ngelaw li moo ko daaneel. su ko daloon yoon dina dal sama kaw de waaw yoon dina dal sama kaw parce que wóorul parce que xam rek man sama loxo arme balance la arme balance la lu ma ko foowee dañ may tëj naa la kandang bi wuyul wuyul loolu am na solo léegi daan nga tey fan nga jëm mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool. looloo tax ñu dem jële ji Jokal daal di koy boole ak Ada l'expérience de Jokal fra face à la jeunesse de Ada Fass bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye lamb ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat yi. ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 dinañu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Jéey foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Njaak magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn télé en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com waaye caatu saf dina fa jàkkaarloo ak njàkk magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn télé en direct lay doon pay ngeen mun ko am ci seen affiche point com